leen di fay. dèjà dina li ñu bokk. waaw man tam maa ngi leen ci remercier ci liggéey bi ma ko masawu waaye man tam maa ngi leen koy masawu dal na ci Tivaouane waaye dal na ci Sénégal yëpp. Hmm, ban waaw gannaaw bi ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi nga xamante ni dal na ci waa Sénégal waaye na eh, dal na également ci kaw président de la République te dal na aussi si askanu Tivaouane commencé ko ci le khalife général des Tidianes bi nga xam ni. gis nañ bii njabootam yëpp ànd ak préfet ànd ak gouverneur ànd ak ministre de l' intérieur ñëw bokk tiis bi ak ñi nga xamante ni ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk dee rek dafa metti waaye ñi nga xamante ni dem nañ nekk des innocents ay mobiles loolu ci fukki ak benn déjà metti na mais demin façon demin biir dafa gën a metti muy lan benn incendie yi moom moo am ba ñu ñàkk si seen si euh, seen si seen bakkan mais gannaaw bi ñu ko naqarloo ndaxte jullit nag te nit mu dal sa kaw faw mu metti la dafay indiwaat nag ñu xalaataat def taxaw set xool muy hôpital muy feneen ndax kuréel bi wàllu Tivaouane hôpital bi gis nañ ñi ñoroon na loolu ku mel ni sëñ Abdoulaye Sy Lamine l'actuel xalif ministre bi ñëwee moom si boppam am na njaboot yi mu yónni mais pour wane solo ba mu jox hôpital bi nga xam ne dañ tuddee góor bi nekk kenn ci ñun muy Mame Dabakh day jógal boppam ñëw di ñaan toujours rek état bi muy def ay effort jëme ko ci hôpital bi état bi nag def na fi ay effort effectivement ndaxte premier plan bi plus de 600 millions defoon nañ ko fi pour relever niveau bi daaw jël nañ décret pour def ko niveau de même service bi nga xam ne fi la loolu amee muy service néonatal service bu bees la boo xam ne ñu ngi ko fiy soog a tabax kon nag xalaat bi mu ñuy jox mooy au delà de l' infrastructure tabax bi ak jumtukaay yi am na loo xam ne ci wàllu organisation loo xamante ni nii si wàllu nit la aju loolu nag la ñuy def taxaw seetlu am na réunion de crise bu am ci biir du ma leen ci jiitu ñoom lan la ñu fas yéenee génne comme résolution mais yaakaar naa ni taxawaayu nit ci biir hôpital defe naa loolu dina nekk au cœur des discussions parce que nag bu fekkonte ni xëy na yàlla dogaloon na yàlla nag lu mu xës ba dogal moom am na mais comme du explosion lakk la moo xamante ni commencé na ba loolu xew fa je pense que am na taxaw seetlu bu ñu war a def xool ñun ñi nga xamante ni ay nit lañ lan moo war a doon suñu taxawaay pour que lu mel ni bañ a amati ci biir Sénégal. alors ci euh, taxaw seetlu bi nga wax euh, sànq dañu xamante ni daf si ñàkk doomam man nee bi dem si leen génnee ñoom ñëpp ñu bi donc moom li mu mën accepté mooy benn médecin nekk woon ci salle moment bi nga xamante ni mbir mi ñu doon am. Euh, nag xale yu toll noonu wala nit nga bàyyi leen ci salle même que c'est loolu tamit nga si waaw xam ngeen service